الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها المستمعون الأوفياء أيها الأحبة أيها الصالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen فين nuyu bu baax fi ñu leen daan nuyoo aljuma bu ne di leen ziyaar ci seen نوي فضيلة الشيخ جارنا حامدو دي نوي سوبي يب مباكي أم دي جامع يفني مانا نك نيو لين دي زيار دي نيانا جارنا حامدو يالا دفل كتوفيق الإلهي سوتو رسو صح دائما واسفين السادات نيو نيب مجل نيو جتل نيو كتير بشير الخليفة دي نيان يالا مايكو سوتو رسو صح دائما في الدنيا والآخرة yàlla sàmma ko aar ko yàggal ko ci kanamu njaboot gi di nuyu suñuy waajur alxaaja Kumba Njaani Sarr suñ papa El Hadj Abdoulaye Diop fii ci Scat Urbam di nuyu waa Scat Urbam yëpp di nuyu mbokk yëpp di nuyu alayima délégué de quartier Mamadou Ciss notable yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu soppe yi fa ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu bu baax Adja Maymuna Diouf maire Ndioufa Adja Nogay ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu niw ñu soxna yi ci cité bi yëpp soxna Fat Cissé fàttewu ñu ko moom it benn yoon yal yàlla defal ko tawféex yal na yàlla sàmm ñu sàmm mu ngi ñaan jamono bu ne ngi nemmeeku ñëpp yal yàlla defal ko tawféex Pape Amadou Sow rajo yokkute Pa Warga Wan El Hadj Baye Ngala El Hadj du Seck El Hadj Yoro Ndiaye ah ñu mel ni ñoom ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel te di leen mas massawu ci mbas mi. ñoom it seen kàddu toujours di kàddu ñaan rek te yàllaa ngi dégg seen ñaan amaana balaa yàgg rek yàlla teggul ñu yëpp incha allah te seen ñaan mooy yàlla defal ñëpp jàmm loolu la góor gi Amadou Sow moom mi nga xamante ne mooy doyen di wax di ñaan nee mu ngi nuyu ñëpp wax dëgg yàlla moom daal dafa nee dafa mel ni rekk rajo bi moom lañu ko sampal ndax mooy wettelam ndax dolleeku na ci ay xame te nee na loolu mu ngi koy sant yàlla sa nee na xame yëpp wax dëgg yàlla ci yoonu yàlla la nee na daal mu ngi ñaanal ñëpp ñuy déglu rajo bi ñi si waxtaan ñi taataan ñi yor wàllu xarale geex nee daal ku ci yëngatu wala di ci xalaat rek mu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla tawféex nee na mu ngi ñaanal ñëpp jàmm ci àdduna bi mbas mi waaye mu ngi ñaanal it ñi nga xamante ne. ñooy ñu mel ni Pa Wargo Wan mu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla tawfiix nee na niki noonu El Hadj Doudou Seck mu ngi lay nuyu bu baax niki noonu El Hadj Baye Ngala mu ngi leen di nuyu bu baax kon nag góor gu Amadou nee na mu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp macha allah nee na bu tuddee ñooñu rek tudd na ñëpp waaye nee na du fàtte El Hadj Malick eh, yëpp Pape Moraax Aminata Sow Pikine ñëpp rek macha allah nee na daal fàttewul kenn. nee na tur yëpp ngi fi waaye leen naan ku lim rek am koo fàtte loolu rek moo fi ne waaye xel xol bi moom ëmb nañ ñëpp mu ngi leen di ñaanal jàmm sutura su sax daa iman kon nag yal yàlla defal ko tawfiix di nuyu secrétaire Fati Bour ñu ngi koy ziar bu baax maam mu jigéen ñu ngi koy ziar di ziar njaboot gi ñoom macha allah rabbi waa hôpital Abbas Ndao waa réanimation ñu ngi leen di nuyu daa ji bu ñu nuyoo bi ñoom it ñu leen di massaw si seen tisoow roxee moom it eh, ñu ngi koy ñaanal yàlla firdaws yàlla defal ko ko niki noonu waa Scat Urbam mbokk yi nekk Louga ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla tawfiix di ñaanal suñu mbokk Omar Diop al oustaz yàlla xare ko aljana moom it fa mu tëdd ca Louga yàlla na nekk naflaayam ñu ngi jàll mbokkam yëpp di jàll waa Scat ku baax la woon nekkoon nax ñun di ñu wéttali macha allah moom. Oustaz Oumar Diop yal na yàlla dolli ko ay leer yàlla na fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ne moom la bawoo ñu koy jàll waskat bam ñëpp macha allah ñu kenn Abdou Sama Ndiaye Chérif Diallo sahibul ibriq di malade yi ci hôpitaux yi ñu ngi leen di seet macha allah moo xam ne sa Philippe Maguilène Senghor la ñu ci hôpital Abbas na wax yeneen hôpitaux yi centre de santé yi yëpp ñu ngi leen di ziar. ñi ci kër yi ti tawat ñu ngi leen di sow di leen siyaar bu baax di leen seet Abdoulaye Sarr Ginte libas Pape Mor ñu ngi leen di nuyu Adja Raki Adja Mari Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Alioune Mbeng fële ci Yoff ni naat li muy toogal góor naat Seck ñu ngi koy nuyu ci ñaan yeex encouragement yi jërëjëf Ibrahima Sila Diaz imam Ousmane Faye ñu ngi koy nuyu bu baax al ayima wal ulama kolle dia mu jotal ñu nuyoo njabootu El Hadji Baye Ngalla yëpp yal yàlla defal leen tawféex Aminata Sow Pikine soxna Binta mbay Liberté 5 ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu yaa Aïcha Diallo soxna Maymuna Jaw HLM ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla tawféex El Hadj Omar Diagne mu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax baax ñaam ngom mariste maire Khoudia Mboup Oustaz Moussa Balde ak ñu mu newal moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla waa Camp Malick ñu ngi leen di nuyu di nuyu homme de tenue yëpp di leen massaw corps médical yi ci réew mi yëpp ñu ngi leen di massaw di leen euh, ñaanal yàlla mbas mi yàlla na ko yàlla oyofal rek ba ñu delluwaat ñëpp ci activité yi incha allah kon nag mbokk yi ñu ngi ñëw ci seen émission xam sa diine ngeen gis ne réew mi jamono bi wax dëgg yàlla mbir yi daanaka ni ñuy waxee rek lépp wàññeeku ci ni mu daan doxi waaye jaamu yàlla du fi jóg incha allahu rabbi wa'bud rabbaka xatta yaatiyaka al yaxiin moom la yàlla wax jaamul sa borom ba dee dikkal la kon euh, jaamu yàlla du fi jóg su ko defee loolu laaj yi ñuy jot ci tey buñ laa ñëw ci bunt bi mooy li dal àdduna bi daanaka suñu réew mucc ci jàkka yi ñu tëjandi leen donc mbokk yi di laaj waaw loolu moom eh, ndax duñ ci am benn daan ci tëj jàkk yi ci ñi ñi demuñu jumaa ñetti ay ñetti juma ci islam ku ko tardé wala bokk yonent bi ne na woon ku ci jàkk ji amuloo julli boo jullee sa kër ah jërëjëf kon jàkka yi dafa am ñaari wax yuñ ciy wax mooy tëj jàkka yi maanaam kon nga jàpp ne jàkka yi tëjuñu ko waaw man nga boo waxee baatu wolof nga ne tëjandi mooy te waaye tëj moom mooy tëj nañ ko définitive wala tëj nañ ko waaye xamaguñu kañ lañ lay ubbi buur teg na ci loxoom waaye bii demewul noonu même guur gi ba muy wax ne sax ah, jàkka yi booba sa daanaka ci anamu ñaan la waaye gis ngeen ne bañ ko tëjee am na ñuy julli teraw ñu kenn julli waaye du tëj bu ñu tëj jàkka yi waaye dajaloo ba lañu doon bañ ngir fàggas ndeku kon nag lislaam lu mel noonu bu amee dafay wax ne jël leen seen matuwaay wala tulqu bi ay diikum ila toxluka bu leen soob seen loxo ci lu leen di alak lii baaxul nga di ko def déedéet kon fii bu ngeen feey dajaloo feebar bi mu ngi fi te feebar bi ñu moytandiku di wax ne xaj na politik la am na lu ci am naam àddina bi moom foo dem rek di nga gis naka su dul noonu te yu bari yi dox ci àddina noonu la waaye nag comme ñun maîtriser wuñu ko xamuñu léppam ah dal na suñu kaw dan ñu ko teg yàlla xam na ne lii xew dañ la koy teg nit a koy def yàlla seetaan mu egsi ci yow di seet nan ngay doxale mu nekk ci ay nattom su ko defee dellul ci borom bi subhaanahu wa taala kon tëyandik jàkka ji woon du ne jàkka yi dafa tëj définitivement te gis nga demaat nañ ba jamono ñoom xaj na ci seen gisin ci seen tëralin ñu gis ne mbir yi mënees naa dellu ginnaaw tuuti ñu ne bon man ngeen a delluwaat ci jàkka yi waaw ah, gis nga marché yi doon wax gis nga transport bi daanaka dina ubbi feex dimanche donc yooyu yëpp jullit bi nag même ubbi nañ frontières yi ubbi nañ transport bi yooyu yëpp am na mbas mu fi am kon nañu moytu na ko il faut que nit ñi tamit ñu xam ne loolu mu ngi fi moo xam nit a ko fi dugal moo xam yàlla ci euh, kantanam moo def loolu ñëw fi ci pexeem ah nu mu fi ñëwee mu ngi fi ñi ko fi dugal nag ñooñu am nañ responsabilité ëllëg bu dee yàlla la ñun suñu responsabilité mooy ñu dellu ci moom kon loolu nañu góor góorgóorlu di moytandiku bu kenn ni mbir mi amul parce que bu la tërëree rek nga sonn bu la daloon tey maara day taali ñu yóbbu la euh, isolement sax yow rek mën na tane waaye jël sa famille mettre leen en quarantaine day gën a mitti ci ñoom kenn dootul dem kenn dootul génn bu yàggee tuuti luñ leen daan taxawoo mën na sooxi bu doon ne yow rek la def isolement sax xëj na ña si des mën a yëggatu ci kon ndëkk lu ne nga moytu ndoku dafa am solo kon yooyu jullit bi daf koy dund kon jàkka it loolu la nañu moytu kon bu nit ñi di delluwaat ci jàkka yi nag

kon lu demee noonu nga xam ne kon loraange moo tax loraange jooju nag comme mu ngi yaatu ñu ne nañ tëjandi jàkka yi ba loolu dàqu waaye du tëj goo xam ne dañu ciy am daan déedéet kenn amul bëgg-bëgg yéene ne jàkka yi nañ ko tëj ku julleewul ci jàkka ji julle sa kër amuloo julli lu wér la yonente bee ko wax waaye waxew ko fii kon ki am ngànt bokk ci ki am ngànt ki amul benn ngànt toog këram lay wax ki am ngànt nag jullee këram kooku lislaam waxu ko te sax jullee gi nga jullee sa kër dañu lay bindal yoolu ku dem ca jàkka ja parce que ngànt moo la tee moo xam jumaa la moo xam laneen la jéego yi nga daan def dañ la koy bindal waaw kon nañu góorgóorlu bu baax kon yooyu daal dalal xeli nit ñi waaye tamit comme nit ñi ñu ngi organiser wu foofu it nga gis ne lu ne rek mën na nit ñi mën nañ ci jariñu gis nga mu lu mel ni di commencé ko ci man mi wax ñàkk yar gi ñàkk orma gi ñuy jox jàkk yi gi ñuy jox jumaa yi boo fa demee nekk fa nu la neexe tooge nu la neexe di fa waxtaane nu la neexe xataa sax nga yor fa loo xamante ne daruura ñëwul nécessité taxawul nga war fa mën a def lu ne hmm? su ko defee nag kon yooyu war nañ ormal boobu le booy wax nga wax ndànk loo fay jëfandikoo la loo fay nangam nekkin wa nga xam nan nga fa nekke yooyu jamono bi mbas mi wan nañu ko kon nañu góor góorlu mbokk yi gis nga transport bi nga wax ne ñu ngi koy delloo siwaat xoolal mbas mi bi muy tàmbali rek nga xamante ne képp koo xamante ne yàpp nga surcharge am na homme de tenue bu taxaw ci tali bi wàccee gis nga sax commencement bi dañ doon dóor ñenn nañi waaye loolu bu jaree ñu delloo si ko wat wala yóbbu leen ci yoon ñu fay sax daf koy jar parce que surcharge baaxul oto bi nangami place assise la nañ ko def loolu même transport yi nga xamante ne sax dañu naan euh, état bi moo koy saytu wala yu ni mel yooyu aussi dafa war am ay place assise bu jeexee jeex na kon mën nañ ko liggéey renforcer tooguwaay ñi ñi di toog te ñu bàyyi taxaw bi parce que taxaw du sécurité parce que ci wàllu assurance ñoo ñu bokkuñu amul dara lu leen assuré te bu jëy yi amoon maara day taali est-ce que dinañ xam ne kii moo toogoon kii moo taxawoon yooyu yëpp a ci dañuy gis rek na ñi si nekkoon ëpp nañ nombre de place kon yooyu yëpp ay comportement la yu ñu war man changer kon yooyu tamit ci yàlla bu indee nattu mën na ko indi comme ni mu ko waxee moom rek wala mu jaarale ko ci aw nit ñoo tëral ngir seen mbiri bopp ba yàlla nammee ci loolu yar askan wi kon askan wi tamit nañu yaru si charge yi nañ ko wàññi pa pa wàññi nañu ko bàyyi baaxul waaw oto boo xamante ne nii vingt cinq place la yëpp assise na yëpp vingt cinq bu ci kenn dolleeku loolu nit ñi ñoo ci war a jël ay matuwaay waaw nguur gi fekk se leen ci fekk se si su ko defee kon yaru nañ ci loolu ci virus bi kenn surchargeetul dema dema dem ba nga ne sax kon léegi kat naa toog su ko defee nag ku si nekk na nga yeb na nga doon yebe mu bañ a déborder waaye tamit comme mbas mi mu ngi fi ñuy moytu waaye comme baat boobu ñuy wax ne nañ dund ak moom mais kuy dem ci oto yi di di di yéeg a xaw wàcc boo ko mënee daal na nga góorlu yor sa gel bactéril gel antiseptique yi façon gel boo ci yor bu ndaw nga yor ko waaw ndax yéeg ku xam yéeg foog nga wax jàppandaku ku wax wàcc wax jàppandaku transport en commun yi kon nit ñi dañuy yéeg a xa kon boo yéegee toog jëlal sa zel nga laal sa loxo sooy wàcc jëlal sa zel nga laal sa loxo sooy joxante xaalis jëlal nga laal sa loxo su ko defee kii war a jël xaalis transport en comme yi kon am ñu moytu na ko jox xalante bi moom mu dem ba ca ka muy laaj koo ko yëkki jox ko yow it bu la joxee noonu tamit na nga yor sa gel donc les apprentis chauffeurs nañu góor góorlu bu baax yor seeni gel bu ñu wàccee it ah wala course bu ne ñuy xaar di yebaat oto bi nañu ko nettoyer même bu ñu amee pompe boo xamante ne dañuy désinfecter tuuti oto bi sax baax na ci bu ñu ñi laa ñëwaat donc parce que ay comportement la parce que transport en comme bi aussi gis nga suñu suñu transport bi li yàlla xam kon il faut que nit ñi changer comportement changer comportement kon ñun suñu cosaan suñu aada dafa bokk ci saafuwante loolu xëj na duñ ko mën a bañ waaye bu fekkee euh, virus bi mu ngi fii ñu war dund ak moom nañu góorlu ba ku jóge ci mbooloo yenn yi boo falaa jógee di dem sa kër laalal sa gel xëj na ndox jàppandiwul ci yoon yi wala bu fekkee ci oto nga nekk laalal sa gel boo demee sa kër nga raxasuwaat sa loxo yi da nga jóge si jàkka ji ci mbooloo xëj na saafuwante jamono bi nit ñi bàyyi nañ ko waaye day dellu siwaat ndax loolu moom si suñu aadala te diine nangu na ko waaw xëj na feebar bi moo tax kon nag tamit même en temps normal boo jógee ci mbooloo saafuwante ba noppi boo demee sa kër da nga war a raxasu loolu tamit nit ñi war nañ ko tàn tàmm habitude boobule waaye jóge ci mbooloo dem kër ga rek ne jox ma kuddu gi lekk noonu loolu wax dëgg yàlla baaxul kon da nga war di raxas sa loxo yi boo eggee ci kër gi boo jógee ci mbooloo mbooloo moo jógee la danga demoon ci tudde la da nga demoon ci mariage la saafuwante nga faxee nit yoral sa gel boo même bu dee temps normal boo eggee kër ga na raxas sa loxo yi comportement yooyu nit ñi dañ ko war a tàmm waaw nit ñi dañ ko war a tàmm parce que loxo dafa jige kanam waaw ndax lu lu tuuti daf lay xaw a xisan sa loxo ngay ngay ngay ngay xosoo sa loxo ngay demee ci bakken bi sa loxo gémmiñ gi sa loxo bët yi sa loxo nopp yi kon ndëg yu demee noonu loxo yi toujours dafa war a set loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne woon ne bu ngeen yeewoo rek li ngeen di njëkk a def na ngeen lox raxas seen loxo yi xamu leen fu mu fanaan kon nag yàlla nu yàlla defal tawfiix mbokk yi mbas mi daal nuñ ci góorgóorlu bu baax waaw nañu ci góorgóorlu changer comportement yi nañ ci góorgóorlu changer comportement yi waaw parce que loolu rek moo ñuy dimbali waaw même bu dul mbas mi yeneen euh, jàngoro yeex yooyu yëpp loolu daf ci am da ngay gis nit mu ne la man kat dama dama grippe ku ne xam na ne grippe dafay dafay wàlle ci lu gaaw kon même comportement yi la rek waaw boo grippee bul bul bul jaxasoo mbooloo yi bu mënul ñàkk boo demee bul bul nuyoo yooyu mooy mooy gel yi nga yi la doon wax léegi booy tusseel yi masque yi ngay yor bu ñi miin tukki dëkk yenn yi wala ñuy dem màkk gis nañ ne virus bi ba mu falaa ne nit ñi fay dem dañu yor ay masque parce que am na xam ne ñu ngi saxat te saxat moom genn gi dafa am xëj na virus bu nekk ci nit ki boo demee ci moquette yi germe yi dañ fay nekk ainsi de suite yooyu yëpp kon jàkka yi aussi moquette yi nga xamante ne dafay téye ay germe kon war nañ di ko nettoyer régulièrement ah bés bu ne ñaari ayu bés yu ne weer wu ne ñu koy nettoyer bu baax di ubbi bunt yi di ubbi fenêtre yi ceñeeru jant bi di ci dugg keneeru jant bi di ci dugg loolu moo tax barayaana ku la ku la gën bari lu muy ubbi ay fenêtre am ay buntam ku lay gën a ci ñaaklu moo lay gën a wér parce que loolu dafa bokk ak wéru doomu aadama waaye bu fekkente ne jant du dugg fenn ci biir kër gi foofu sa waay amal xel ne ah boo moytulee am na doomi jàngaro yu fay laaxu waaw kon nag euh, am na bërëb yoo xamante ne foog cee ñeeru jant bi daf fi war a dugg ndax jant bi yooyu tàngaay woowu dafay rey yenni virus yi waaw kon nag yooyu tamit ñu bàyyi ci xel loolu moo tax nga daan gis mag ñi daan jékki-jékki génne dàmba yi génn wadis yi weer ko ci naaj yi ba naaju jàpp ko ñu dugalaat ko loolu amulee jëlal nga jël sa fer à repasser jaaralaat ko ci door ko dugalaat kon yooyu yëpp day tax euh, yenn germes yi du ñu làqu ci ci ci ci yëre yi ax yu ni mel kon daal ay comportement la yu baree bari nga xam ne doomu aadama yi war nañ ci jàngaat bu baax a baax su ko defee loolu dana leen dana leen dimbali yal nañu yàlla defal tawfiix di nuyu soppe yëpp fu ñu mën a nekk rek te di teewlu ñu ngi leen di nuyu bu baax buñ ñëwee nag ci buntu tey bi ñuy développé incha allah ndax waxtu yi comme ni ngeen ko xamee jamono bii rek euh, bu ñu demee ba trois heures et demi rek ubbi leen ligne bi def dix minutes quinze mooy le quart pour ñu mën a euh, yeeweeku responsabilité mooy lan mbokk yi suñu borom nee ne diine l'islam bàyyiwuma ci dara boo xoolee fan yi réew mi daanaka yëngu-yëngu am na fi gox yu fasantikoo ci réew mi xale yi walla sax yenn mag ñi ñu ngi génn di yëngal di taal fi di yàq fii di def nii yooyu ñuy yàq war nañ seet lu tax war nañ ko utal saafara mais ki koy seet ki koy utal saafara am na lu ci ne rek ku nekk ci bopp bu mooy autorité kilifa la gu ñu dénk loola moo xam da dale ci njiitu réew mi ba ki gën a suufe ci ay responsabilité kon moo tax ñu bëgg tey ci xam sa diine nga xam diine lu mu wax ci responsabilité al mas'ula al mas'uliya وطلب الwilaaya bu ñu xoolee loolu dañuy delluwaat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne suñu boroom moom la ñu joxoñ ne xool leen yonente bi mooy seen modèle kon joxe ay responsabilité yàgg na tey boo ko indiwaatee ci jamono بخول مصعب آه، ابي ذر الغفاري كان لو انت كان مصحابي واي من جاباني امباسادور بي ني نجهك نومي تي الاسلام بودينا تيتر بوبو لنج كو جوخ موي مصعب ابن عمير ngir mu bayeko makk dem medine nekkal fa l'islam nekkal fa yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon yooyu yàgg na ci jamono kon nome nañ ko ambassadeur walla kii nome nañ ko PCA wala kii nome nañ ko DG kii nommé nañ ko ministre kii nommé nañ ko nangam kii nangam ki nangam kon responsabilité taxaw na mbokk yi Abu Zarrin dafa ñëw ci yonente bi gis na mu ngi nome nit ñi mu ne ah man dey ci parti bi laa bokk wala parti bii laa bokkoon dama transhumé ñëw ci yow kon moom yayoo na ñu jox ko liñ ko war a jox bu dee noonu la parce que li ñuy seet mooy ulul kafaa borom ñi am compétence yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naka ya aba اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم رواه مسلم سبنين روايه منكو يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه حزي وندامه إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم أبو زرين بغنا يرنت بي نوميكو مونيكو ريسبونسابيلتي لا دي كون ني ني فال جوخ لين ريو ني فال تي بير ريو مي جوخ لين اي ندوم تانك ريسبونسابيلتي نين يور كون ريسبونسابيلتي دا فا ام خلال يونت بي صلى نكو يا ابا ذر اني اراك ضعيفا دما غيسنا دا فايبل كون مانو مالا نومي كون كريتير يوي نيت ني وار سيت اني اراك ضعيفا دا فايبل فابلس بوبو ndax aba zarin dafa jubadi dedet ndax aba zarin warkat la déedéet ndax aba zarin ku ñàkk màndu la déedéet ndax aba zarin day seede lu dul dëgg déedéet inni araaka rajulun daif dama gis ne da nga faible mooy da nga bëri yërmande yow aba zarin nitu sentiment nga yow aba zarin da nga bëgg a déglu di ñëpp ku ñëw nga bëgg ko satisfaire yow Abaa Zarin te responsabilité bi ñu war a joxe nit mu man ko yor ci kanam société bi ci kanam boroomam dafa laaj ndëgër laay dafa laaj taxaw bu mat sëkk te yow nag gis naa ne nitu sentiment nga nitu yërmande nga xam nga boo jàkkaarloo nit en temps normal nekk da nga faible naka da nga dina gis boppam dina réagir lu tax nga ne man dama faible yow dina réagir lu tax nga di ma ko wax lu tax en tant que être humain am na lu muy yëg mais xoolal yonente bi saa salaam mu di ko dalal di ko wan ne ko waxuma la ne in innaka daifun ngir ayibal la waxuma ko ngir tuutal la waxuma ko ngir xeeb la déedéet mais dama ko wax ngir bëggal la li ma bëggal sama bopp waaye tamit wane ne am na lu nekk ci yow te newul ci ñeneen ñi moo tax mu nekk inni araka daifa da nga faible mooy borom ne nga borom sentiment nga bëgguloo kenn mer kon ñi ñu dénk bëgguloo kenn mer googu yonent bi waxoon abazarrin boo ne réew mi kenn du mer ku ne hëj nga ne acet baax na dellu dellu naa ci ginnaaw mais inni araka daifan dafay taxawaat ci yow kon autorité amna fo xamante da ngay wone sa autorité bu jaré feug ci taawal ji nga feug ñu xam feug nga ci taawal ji ñëpp ne ah kilifa gi day aduna nga waxanté ñom waye même bo len di am lo len di may ñu xam kilifa mo len ko may te kilifa amna fi يا أبا zarin إني أراك daifa لولو بومو mu te mbir mii xew di mbass mi lu bare bare feñ na ci anam yoyu kilifa yi di delu ginnaaw si buñ ko mané wax bu fekke aw askan dañu jóg ñet nit ñeent juróomi nit ah taal fii yuuxu fi def fi ñu delu ginnaaw don tele buñ ne même nguur gi kilifa yi waxon nañ ne xëj na balaa yàgga dinañ jël ay matuway feex altine wala talata ñu yaakaaroon ne foofu la jëm waaye tamit bu loolu jubee it ku ko doon xelal war nga ko wax ne ka delluwaatal ginnaaw tuuti feex ñaari fan bul waxagul ñii wan leen ne kilifa am na fi ba noppi ñu xam ne kilifa am na fi am na foo xam ne da ngay wane sa kilifteef mais dañ la dénk ay responsabilité tey bu fekkonte ne da nga ñëw ci rajo bi war fi waxtaan ñu ne la waxtaanal lii nga jël wax lu la neex xas ñin ñi saaga ñin ñi ci rajo bi ñu ne la eh lu tax ngay defe nga ne lii laa gisee na tey lii la am envie wax mais kilifa rajo bi du la bàyyi ci loolu dana la wan autorité am dana la mise à pied na la eh rajo bi bul waxtaanati ba jëmmi jamono toogal fan yi bul ñëw parce que dina la wan autorité am ba nga xam ne autorité am na fi nag soo ñëwaatee mu ne la lii laa bëgg lii bëgguma ko lii laa bëgg lii bëgguma ko mais loolu mooy autorité loolu mooy autorité mais boo defee noonu mu ne waaw baax na <laughs> waaw waaw baax na baax na ëllëg mu dina def lu gën grave loolu inni araaka daifa gi yonente bi waxoon yonente bi sa sam ñu dal ñun ñëpp xool ko si sa kër boo ne lii laa fi bëgg tey ñu toggal ma nangam mu am ku jóg ci njaboot gi ne man kenn du fi toggal nangam lu tax mu ne eh loolu kenn du ko fi def lii moo ma fi neex li ma neex mooy am mais boroom kër gi dana ko wan naka man maay kilifa kër gi mais loolu mooy autorité kon nit ñi yàlla def responsabilité nekk ci yow da ngay jël say matuwaay te loolu feeñ na ci anam yu baree bari pour bañ di dellu siwaat ci yooyu parce que wax nañ ko lu si ne fiñ ko war a wax kon autorité day marqué autorité ñi mu jaboote xam ne mooy kilifa gi même bu ñuy yëngu ci dara ku si am nga droit wax li nga bëgg a wax ci teggin am nga droit ñaxtu ko boo ko demandé ñu nangul la ko bu fekkee fa ngay toog di wax duñ la dégg demander autorisation nga def marche même bu dee yow rek la bu dee ñaar nit yéen a xam ñu ñu permettre leen ngeen dem fa ngeen ñaxtoo moo xam sous préfecture la wala gouvernance la wala ministère la wala wala média bi nga xam ne réew mi ñoo ko moom nga dem fa manifester wu wax li nga bëgg bu fekkee am na koy jox ay doléance nga jox ko ko ñoom ñu dégg la waaye foog ma toj foog ma taal foog ma yàq mais li nga yàq bien public la kenn waru ko yàq kuy yàq ci àllu réew mi dañ la war a teg ay daan yoon dafa war a taxaw sa kaw walla ne la may autorité mais lu ñëw nga sëgg lu ñëw nga sëg mais auto sa autorité day day dafay yàqu doto am ben crédibilité devant dom adamay lo wax ken du la kenn du la déglu kenn du la groupe bu dañuy jog def lu neex mais dañ ne dëkk bi nangam mo fi am couvre-feu mo am nañu def nangam mais ñi nek ay responsable wara xey di yobul sen njaboot war leena taxaw do len gis mukk ñi saccager bien public yi do len gis mukk ñu nek di di veille nocturne déedéet tëddi nañ buñ xëyee ñu seet lan lañ war a mën a def mais ku taal ñu dellu ginnaaw ku yàqa ñu dellu ginnaaw sëgg duñ wax dara mais ana autorité mais yonent bi salaa sallam loolu la wax aba zarrin ne que inni araaka daifa kon l'islam dafa bëgg autorité autorité nag du dóor ay yet du du nangam du déedéet mais da ngay marquer sa autorité boo marqué ba ñu xam ne yow yaay kilifa gi nag loo leen di may nag nga may leen ko ñu xam ne kilifa am na fi fii lañ war a yem mais du du du hasard l'islam ne lu ngeen waxtaan ba dëppoo si feex dagana lu leen wala arama lu l'islam tere wala lu mu maye rek baax na ñu ne kon dañu am réew dañu am charte réew dañu am ay tëraliñ dañu am nangam constitution lañu am ñi ñi dëpp si mu am benn kuréel ñetti kuréel ñeent ñuy jóg di révolté wu di def lu leen neex ñu bàyyi leen kooku du autorité amatu fa kon ci ville yi mu xew wala ci village yeex fu mu mën a doon autorité dafa war a taxaw wan leen ne dëkk bi dafa dëkku droit la inni araka daifa mu ne ko te li ma bëggal sama bopp laa la bëggal yow aba zarin yonent bi wax ka loolu kon bëgguma ñu critiquer la bëgguma ñu lay auditer ëllëg bëgguma ñuy def soulèvement ci li nga yor ci sa autorité parce que yow da nga bëgguloo kenn ku mer ñëpp nga bëgg ñu bëgg ñëpp nga bëgg lu ñu laaj nga jox leen mu nekk nag autorité du noonu moo tax mu nekk duma la fal inni araaka daifa loolu la si yonente bi jublu kon loolu dafa valable ci man ci yow ci kaneen ñëpp autorité dafa am solo mbokk yi yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 98 point deux fii ci Scat Urbam kon mu ne ko li ma bëggal sama bopp laa la bëggal kon nit it da koy bëggal li nga bëggal sa bopp bu fekkee si ay conseil nga bokk nga ne ko ah mbir mi kat ni mu mel nii neel tekk rek déglu waaye fees suba ginnaaw suba génnal nga wax am na foo xamante ne autorité bu fa tolloo day wax ah ku def nangam kat nangam ku def nangam nangam kon yow mi ma dënk mbir sàngam it jëlal say matuwaay bu nangam xewee toppal lii charte réew mi wax defal ku jalgati de nañ ko def nàngam mais loolu mooy autorité bu ku nekk toogee nag place ba ñu xam ne moom mënalul boppam dara nag booy dawal ci moom ma yërmande booy dawal sentiment nga door ko dawal li ma bëggal sama bopp laa la bëggal loolu la yenente bu wax Aba Zarin naka maa ngi lay ñaan ñaari nit bu leen jiite waxuma la presque des centaines des milliers des millions de personnes bul bëgg a nekk mukk njiit mu ne ko dafa diis ëllëg responsabilité boobu ëllëg yax askan wi responsabilité boobu ëllëg yax sa boroom mu ne ko bul jiite mukk même deux personnes bul ko nangu yaa aba zarrin kon yow bëgguma la fal ci loolu waaw am nga ay qualité yu baree baree bari waaye nag wàll wii nga xamante ne fa lañuy ñuy fale njiit yi pour ñu mën a doxal lii da nga ci am ay faiblesse yu bari te bëgguma ëllëg jam-jam di la dal mu ne ko na nga góorlu ba alalu njirim nanga ko ko sàmmal nanga ko fa bàyyi alal ji askan wi moom ay njirim lañu yaa ci mën a teg sa loxo lu lëj yaa ko mën a laaj laxanti alal ju ne woon bitim réew même doomi réew mi man ko la nga ci mën lijjanti mu ñëw keneen manu ko alal ji nga xam ne mu ngi ci banque bi boo joxee ay instruction ñu mën ko lijjanti jox ko seen njaboot alal ji nga xamante ne moom trésor moom lay saytu muy alalu askanu yow yaa si mën a am sañ-sañ si nangam képp ku si jalgat yow yaa war a mën a taxaw ne eh, kii téye leen loxoom ci nangam na delloo li mu ci jëloon képp ku ci bëgg xelaat wala def ci nakasul naxari war na wan na yow mii kat sa xelaat dëppoowul ak xelaatam mu dellu ginnaaw kon alalu njirim loolu lay représenté mooy population bi ay njirim lañ yow yaay seen bàyyi kon autorité mbokk yi dafa am solo dafay valable ci askan wi association bi daayire bi ASC bi kuréel gu mu mën a doon responsabilité ba nga fa yor dafa laaj nga nekk koo xamante ne ni ku mat ngay doon kon nag ñu ubbi leen ligne bi incha allah fexe juróomi minute balaa yëkkati jotaay bi waxtu wi di jot ci autorité ci ku ne rek taxawaat te ñu sàmm suñu réew bañ ko saccagé bañ ko yàq. 88 628 10 95 mooy gumu jokkoo gi di nuyu soppe yëpp incha allah fu ñu mën a nekk rek ñu leen di nuyu bu baax fàttewu ñu munaas Thiaw macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax fële ci yof na ngaañ fàttewu ñu Adja Binta Ndooy fàttewu ñu suñu yaay yaafaal ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ñi tawat ci kër yi hôpitaux yëpp ñu ngi leen di ziar di leen massaw yal na yàlla defal leen tawfiix ñu nekk ci xat-xat yal na yàlla teggil leen xat-xat yi bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp jàmm su mel ni ku fëgg rek ñu ubbil la si 88 628 10 95 mooy gumu jokkoo ci wàllu autorité di ñaan aussi mbas mi yàlla teggil ñu ko incha allah allo salaamaaleykum. waaleykum salaam bi ma mbay. waa kay ngi ziar bu baax. ñu ngi ziare. sant yàlla. day ñaanal jàmm. allahumma amin Seck. macha allah li nga jërëjëf Seck jërëjëf. Sénégal ni mu mel léegi. wallaay dëgg la. maa ngi béykat. wallaay sëkk waay wax. lu dëgg la. bi ñuy def. Uh-huh. semaine la rek ñu delluwaat ci jikko yi. wallaay dëgg la wallaay. ku nekk la la neex rek. <laughs> wallaay wallaay sëkk. wallaay bu amee lu naqari bul yàq. bul yàq jërëjëf ko. moomuloo ko wallaay. Uh-huh, uh-huh. ku nekk bi mu neex waay. doy na waar doy na waar. wallaay Seck wax nga dëgg jërëjëf Seck jërëjëf waaye macha allah jërëjëf keroog bi ñuy def euh, kii euh, euh, Moussa Imam Moussa Gueye jot jotale nañ seen nuyoo <laughs> dëgg la dëgg la waaw dëgg la dëgg la jërëjëf Seck amin Seck jërëjëf a eh, Fadje mu ngi fa rek. mu waaw confinement beeg a rek. Ah, waaye moom mu ngi si jàmm mu ngi lay ah, dégg sax nii xam naa. maa ngi suivre boobu. dë dëgg la dëgg la ko doon def. jërëjëf walla wala. jërëjëf di bu ma eggee léegi dinaa ko wax yaa ngi koy nemmeeku waaw. Euh, El Hadj Amadou Dieng. jërëjëf jërëjëf. mu ngi lay delloo ziar. jërëjëf. jërëjëf. waaye ngaa la jërëjëf jërëjëf Seck. jërëjëf. jërëjëf Seck. li nekk ci réew mi liggéey ko àddina bi yëpp yal ko yàlla tegin jàmm amiin suñu muñee am am su am teg yàlla rek yàlla dana ko dindi wallahi wallahi yàlla ko bari yërmande wallahi ja jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah elage dudu sekk gis nga um, mag ñi bu ñu waxee rek macha allah gis nga mag mu mu responsable rek boo ko déggee di nga xam dinaa wax wax ju yiw du tere nga nga bëgg a manifester demandel da nga am looy bëgg wax waxal mais si teggin ci yar mais bul yah bul toj mais alhamdulilah gis nga mak lol lañ koy doyee jërëjëf allo salam alaykum wa da nga melni boy jige ñe radio wala yu ni mel nga wañi ko 88 628 10 95 allo ah kon dina duggaat incha 88 628 10 95 inshallah allah jërëjëf euh, macha allah ah allo ah. allo. wallaahi. waaleykum alaykum alaykum salam Seydi Imaam. Fadilatul Oustaz ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar baax di am kontaan te lool. ci émission Balde ñu ngi lay bëggee jërëjëf. macha booba léegi ba tey maa ngi tëddoon nag. wallaay jërëjëf. yal na yàlla defal la tawfiq. amiin amiin amiin alhamdulilah maa ngi ki ci bokk ki muy Omar Diop. Omar Diop wallaay di wax ne dafa mujj génnaat dina. dëgg kay dëgg yàlla ko yàlla yégal te yërëm ko ñu ngi leen koy massaw yéen ñëpp macha allah yàlla na ko daaxal fi mu amin yow itam yàlla bàyyi suñu amin oustaz jërëjëf waay amin imaam yëpp amin amin oustaz jërëjëf waaw ah, tey nag moom fi ma macha allah ñëw nag jërëjëf jërëjëf man li ma lay ñaanal rek. Uh-huh. di ko ñaanal ñu mel ni yow. mooy yéen uh-huh. ñu mel ni yéen yal na yàlla def ngeen dem ba mën a nekk ci pali bi. amiin incha allah baax na waaye nan nañ. waaw parce que conseil yi moom dañu war a yóbbu ci état bi ñu koy dégg. di ko jërëjëf jërëjëf eh, yaa Imam Mbaye. gis mm-hmm. bu ne. Mm-hmm. dafa am système bu koy doxal. Mm-hmm. pour réew ma mën a am jàmm. allo allo waaw yow rek la déglu moo am na état boo xam ne système mu. Mhm. Aboubacry mooy tax mu dox. macha allah. am ci boo xam ne. Mhm. système mu Omar ibn Khattab mooy tax mu dox. Mhm. am ci boo xam ne Ousmane am ci boo xam ne Ali. waaw ñun suñu état bi li koy doxal mooy système Omar ibn Khattab. Omar de wallahi macha allah. waaam Omar ibn Khattab système am. foofu wallahi wallahi. loolu bu amoon rek am naa yaakaar li dina changé. waaw lu tax nga jubli si waaw xam nga Omar. Eh, eh. dafa nekkoon ku ñemewoon dëkk. macha allah. doon ko doxal nag. Mm-hmm. bu ci seet ma Samba du ci seet ma Demba. dëgg Omar ragalu toon wéet ci dëgg dëgg la wallahi dëgg la moo tax état am dox faalul kenn wallahi dëgg la bu ko biree ne lii muy doxal dëgg la rek mhm. bu ko ñun dëgg la dëgg la faw na am njiit yu amee dëgg la macha allah fadilatul ustaz Moussa Balde foog ñu am njiit yu mel ni Umar ibnul Xataab te wax na dëgg effectivement Umar ibnul Xataab gis nga loolu la ko yàlla mayoon mu réussir ko macha allah allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. imaam Kéba. waaw Kéba ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar bu weer sant yàlla bu baax Kéba. di kontaan ci émission bi di wax ne rafet na macha allah. jërëjëfati jërëjëf. waaw man booy ñëw rek mooy. ci uh-huh. wàllu jeunesse. jeunesse bi jërëjëf. nga xam na nii tey tey moom nga wax. Uh-huh. parce que boo xoolee tey ci tey. Uh-huh. Euh, dëkk bi fi mu toll nii. dañ toll foo xam ne ñëpp a jaaxle. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. mais. Mhm. yow bu fekkee da am lu la metti mhm. nga bëgg ka ñaxtu. Mhm. bu boobaa da ngay yàqu ba pare yàqale. allahu akbar jërëjëf jërëjëf. loolu noonu moom. wax a dëgg yàlla ku nekk bëggu ko yow boo fekkee ne da nga am lenn loo xam ne dala métti. da war a xam ne ci temps yi Sénégal ñëpp a ko amandoo. wallaahi ñëpp ñëpp donc da dañ war a rafetal rek. di xam ne ku inconscient moom. Mhm. ku inconscient rek kay def loolu noonu. wallaahi dëgg la wallaahi dëgg la. yow bu fekkee conscient nga ànd nga ak sa esprit am na yu bëri yoo xam ne nii moom macha allah. du la ci fekk wallaahi du la ci fekk jërëjëf. côté boobu moom damay wax jeunesse bi rek. Mm-hmm, mm-hmm. ñu gën a ñu ñu bàyyi xel. Mm-hmm, gën a bàyyi xel di xam ne instant pays bi moo toll foofu noonu. wallaahi moo fi toll jërëjëf. waaw kon nañu fonk suñu bopp. fonk suñu réew rek macha allah macha allah xam ne lii moom macha allah mbas la rek te ñëpp lay daal. ñëpp lay daal wallaahi ñëpp lay daal. waaw loolu laa amoon ci lu mu wax. ma lay sant fooy ootee. <laughs> Euh, maa ngi ootee ci sama maam. waaw jërëjëf nuyul ma ko lu bari. waaw <laughs> macha yow la jox lenge bi quoi. am ma jox la ka sax. waa ziara yow li nga wax mat na sëkk. <laughs> jërëjëf. est salaamaaleykum wa rahmatulah. ah Dia ñu ngi lay ziar macha allah. waaw maa ngi ñaan sama gars yi duñ ma coupé de. waaw déedéet kenn du la coupé. yàlla <laughs> ñu ngi ziar. jërëjëf Seck jërëjëf. mais jërëjëf yal na yàlla yàggal taxawaay bi. jërëjëf Dia jërëjëf Dia. yal na yàlla sàmmal ñu. amiin waay jërëjëf jërëjëf. macha allah yéen a ngi respecté diine ji bu baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf yal na ngeen si yàgg tëjee. macha allah jërëjëf. yal na yàlla kontaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw mbas mi yàlla nañ ci yàlla musal. amiin yaa rabbi. waaw ma bañ a guddal trop ah aussi di leen jàll waaw mu Omar Diop waaw Abdoulaye Sarr aussi dem naa euh, mu ngi lay dégg sax mu ngi lay dégg. yàlla allah jërëjëf Dia jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf mais mais man xaw ma woon ne Kéba man na man na waxee sensibiliser noonu ah. xam nga dama dama oot <laughs> la mën na déedéet. <laughs> ma ma réussir na moom kay intervention bu am solo la def. préparal dinaa la jëlaat wala même ma ñëw fii ah yow en direct incha allah. waaw d'accord jërëjëf dinañ ko dégg dinañ ko dégg jërëjëf jërëjëf <laughs> macha allah donc euh, Kéba macha allah même gis nga bi muy commencé di wax sax euh, xaw ma mënaat sama sët bi xàmmee ma baat bi bi mu ne kebaa mais bi mu waxee mais wax ji dimension bi mu toll macha allah euh, kii moom macha allah macha allah jërëjëf alo allo allo alors dafa mel ni rëcc na 88 628 10 95 jërëjëf Kéba kon gis nga sensibilisation jeunesse ndaw la gis nga donc ndaw ñi foog ñu conscient donc gis nga mooy li oustaz Moussa Baldé wax il faut que ñu am rigueur gis nga El Hadj Doudou Seck bi mu duggee rek mag sensibiliser na moom la El Hadj bàyyi ngaa la gis nga macha allah li yàlla def moom mën a dugg waaye mu bàyyi setam mu dugg allo. allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah Pape Mor ñu ngi ziar. maam ñu ngi leen di ziar bu baax. alhamdulilah. di leen baalu àq di leen ñaanal jàmm. jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla boole defal jàmm. allahumma amiin. barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. Abdoulaye Sall ñu koy jaale. mu ngi lay dégg jërëjëf jërëjëf. yal na nga yàlla xaaral. allahumma amiin. barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. di rafetlu rek ñaari intervention yi si jaar. ñaari. wala seen kàddu mënoon ministre mënoon nañoo bañ a wax sax. wallaay wallaay. wax dëgg yàlla boobu li nga li nga moom moom boo ko yàqee. Mm-hmm. après di nga xam yow fan nga jëm. macha allah. waaw jërëjëf moom nga yàq moom erreur mënul weesu loolu. wallaay wallaay wallaay ñun dañ toll si réew moo dëgg la dañu war a fonk li ñu am. wallaay dëgg la defar ka. yokk pexe yokk moo gën wallaahi génn bi di taal ay oto yàq la wallaahi wallaahi pour yow nga taal benn bantu bale sànni mhm. mhm. la yàq la wallaahi dëgg la loolu la yàlla si yàlla musal allahumma amin pap ba lépp lu ñuy def rek ñu ànd ak amin yaa rabbi amin waay jër jaar ñëpp amin jërëjëf pap damay wallaahi pap na jërëjëf pap Mor macha allah rafet na wallaahi dëgg la macha allah euh, jërëjëf 88 628 10 95 mooy gumu jokkoo gi ci sensibiliser nit ñi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. wa maa ngi ziar. alhamdulilah jërëjëf alhamdulilah. di ziar ñëpp a ngi lay ziar. di nangu seen jaar. amiin jërëjëf. ñëpp jërëjëf jërëjëf. jërëjëf. yàlla yàlla jërëjëf jërëjëf. dëgg yàlla jërëjëf Sarr jërëjëf. kon nag yàlla mi man fay. yal na yàlla fay. allahumma amin Sarr. fay yal na yàlla tàmbal ñu la. amin jërëjëf jërëjëf. yàlla taxawu la. jërëjëf jërëjëf. ndax ñuy jox ci dëkk bi. yal na yàlla musal musal allahumma amin yaa rabbi allahumma amin Sarr. amin yaa rabbi amin waay. allahumma amin yaa rabbi. ñëpp a ngi la koy delloo jërëjëf. jërëjëf Sarr jërëjëf. jërëjëf Sarr macha allah Abdoulaye Sarr Ginte jërëjëf kon nag euh, ñooñu nga delloo njaal mi tamit yal na leen yàlla defal tawféex ñoom El Hadj Baye ngaa la ah ñoom ñëpp am moor macha allah yal yàlla defal ñëpp a tawféex euh, ñii dem njiitu yal na leen yàlla yërëm te jégga leen xara leen aljana ci 88 628 10 95 mooy gumu jokkoo gi ku fëgg rek incha allah rabbi du ko defee kon euh, macha allah am na solo kon li ñu moom il faut que ñu sàmm ko. il faut que nit ki bu amee lu muy ñaxtu mën na ko ñaxtu ci anam yu mu gën a rafete waaye li nga moomal sa bopp liñ la defal mais sàmmal ko sa bopp su fekkee da ne dëkk bi amul ay infrastructure allo salaamaaleykum allo. allo jërëjëf allo salaamaaleykum. allo. ah rëcc na si 88 628 10 95 mooy gu mu jokkoo gi kon dëkk bi amul ay infrastructure ñu ngi defar ñu ngi defar lu ñu defar nga yàqaat ko mais ëllëg doone dëkk bi kenn defu fi dara doo fi fekk dara kon yooyu euh, daf ñuy tardeel kon mën nañ euh, ñaxtu bu dee dëkk yi nga xam ne sax yàlla am na fu ñu toll sax xëj na yow loo loo yàq fii tey pour ñu defaraat ko coono la ah yàq moom kenn du ne xoolal ci dëkk sàngam déedéet waaye même ña ay def sax am na fu ñu toll waaye ñun ñu ngi ci yoonu waxuma la euh, raam sax defaguñu ko loo xamante ne defal nañ la ko boo jógee fekk ko fi nga war si jariñu ñeneen war si jariñu ñu saccagé ko ci lan dañu war a génn mais xale bu conscient comme lii baa wax doo ko def doo ko def te ñu génn mooy lan di def tapage nocturne kenn nelawatul mag ñi dañu war di dallu ñi tawat dañu war di dallu nit ñi bu dee digg bëccëg dañu war am na waxtu sieste la dañu moom seen bopp mais doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg doo dallu mais loolu bokkul ci luy développé réew ndaw dafa war sàmm kàntanam bu liggéey wàcce noppalu bu subaa mu amaat force mën a dem mag ñi seen wàll wëy na kon yooyu fougue de jeunesse boobu nañ ko moytandiku bu ñu amee lu ñu naxaar wala lii la ñu bëgg mais koñ bu ne gox bu ne nañu gise xale dem ñaan autorisation ñu ndëkkat dañu bëggoon marche ba béréb sàngam ñu dégg sax mais loolu moo rafet il faut que jeunesse bi teel a nekk ay responsable teel nekk responsable kamaatu diinu tu daan li nga leb rek lañ lay fay ëllëg kon nañu conscient mbas mi àddina bi yépp la laal ax lu ci mën a xew gis nga tubaab yi ni mu leen lëjale gis nga ni mu leen lëjale bëgguñu ko bëgguñu ko ak seen caaxaan yu rëy répp kon nag ñun it nañu góorlu bu baax te ñu xool ci mag ñi fi ne mag ñi mag mu conscient mag mu xam lan mooy àddina du la digal mukk loolale kon nag ndaw ñu nañu góorgóorlu bu baax waaye autorité bu mu si mën a doon rek na nga jël sa matuwaay li oustaz Moussa Balde di wax Umar ibnul Xataab noonu la wax na dëgg ba xilaafa gi taxawee mu wax Abu Bakrin mu ne Abu Bakrin yaa war a falu yaa gën a jige yonente bi yaa ma gën a ragal yàlla yaa nangam wax qualité yu baax yu bare ci moom Abu Bakrin ne ko yow yaay falu lu tax mu ne ko rigueur bi nga am man aw ma ko kon gis nga Umar bi mu ci tollooy dafa abu Aboubacrin am ah la leen yonente bi jàngal mu incarné ko loolu moo tax nguuram amoon doole ñépp tegu ci yoon ku jàdda rek mu rëq sa ndigg kon santiment boobu moom la dañal te loolu sax daa daana ko doxal ci jamono yonente bi fu dara masaan xew yonente bi ne ah nañ kii mu ne nañ def nangam ku masaan ñëw boo waxee wax yonente bi wax ju diis sax mu ne jox ma jaasi ma corbaat bi donc nit ku dëgër la woon mais nekkul woon ku violent moom Omar ibnul Xataab mais ku dëgër la woon ku dur mais nekkul woon ku violent ku mën a jéggale la woon ku amoon yërmande la mais nag bu dëgg taxawee rek xoolatu ci kenn mais loolu nag moom la ñu soxla mii tey jërëjëf mu Moussa Baldé kon ndaw ñi loolu seen mbokk ndaw wax di Kéba na ngeen ci bàyyi xel mooy jiima góorlu nekk ay responsable su ngeen ko defee mag ñi dañuy tëdd tranquille dañ ne ah man kat sama ndaw lii kat ndeke conscient na am na loo xam ne du ci dugg bari yaa na ndaw ñu baree bari seen àndandoo yi rek ñoo leen ci yóbbuwaale waaw ah, ma riirandoo rek ma riirandoo boog ay eh, waay yow tàppet nga waay yow sóob man nga waay yow looy laxal nii yow looy def nii yow looy nangam nii nga ne ay ca ayca ayca ayca mais donc moo tax nit toujours foog nga mais gis nga yooyu boo ko laa xam rek nga jëm mag ñiy déglu ñu bari xam nañu loolu ku si sa génération am na yu xewoon mais boo toppoon ñooñu bëggoon am fo ñooñu nga xam ne bëgguñu woon lu baax tey ji kilifteef ga nga doon la nga doon doo ko doon tey bu boobaa tey kenn du la jox benn responsabilité am na loo xam ne sax doo ku la ko jox nga yàqaw ko kon nit aussi fokk nga àndax sago fokk nga àndax dal lu nit ñi yëngal yëngal yëngal seetal ndax jar na ko wala jaru ko li bu ma ci duggé fan la ma jëme waaw lii ku dégg ne ma toj lii maa yàqali est-ce que ëlëk duma ma am yeddaange est-ce que ëlëk duma rus mbokk yi kon nak su défé ma sha allah yal yàlla defal ñëpp tawfiq vraiment tay intervention yi amna solo lol lol lol lol lol ma sha allah vraiment bëgg nañu lol yal yàlla defal leen sutura réew mi yal nuko yàlla samal yal nañu yàlla sàmmal réew mi ñu nekk bitim réew yal na leen yàlla sàmmal defal leen sutura bu baax mbas mi yal na ko yàlla daxal ñu ne ci hôpitaux yi yàlla saafara leen borom njàqare yi tiis yi yàlla faj aajo yépp bi jaaxi rasul sallallahu alayhi wa sallam kon nag di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw incha allahu rabbi ci seen beneen tomb waxtaan wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu